alors euh, Senbuzz TV mbokk yi ñu ngi fii ci Sébikotane tey li waral teewaa bi fii dafa am benn jeune joueur international sénégalais bu ñuy wax Philippe muy doomu Sébikotane moom nag mu ngi évoluer fii la ci diwaanu Turquie tey mu ñëw fi quand def geste bu rafet dajale ñi nga xam ne ñoo ay xaritam ya nga xamee ni bala football ñoom ñoo newoon nekk ndoor fii ci Sébikotane am match d'amical boo xam ne mu ngi ko fi doon amal xanaa rek Philippe pour commencer dañu a baax maa ngi leen di fay maa ngi leen di fay yéen ñëpp yéen ñi déplacé wu xarit football ñoom tey loo yëgaat waaw ay bon fàttaliku nga am. kontaan bu baax kontaan bu baax billaahi parce que mooy lu ma wax sànq rek lii moom mooy mooy ñi nga xam ne ñoo doon fubal naaj bu tàng beeg daan cotiser deux cent di di dem abi maire bi deux cent wala ama pour boo gagné amaat quatre cent teg-teg yi fii mooy ñi fi nekk nii rek donc du coup moom genre contentement la daal. waaw contentement bu mag ñëwaat ama dajaate gars yi. di ñaanal tamit xam nga ñoom ñu ci nekk nii yàlla ubbil leen affaire yi ba ñu fekk ñun tey fële ci kaw comme ni ma ko waxee ñu ñëwaat di koy jëndoo fii nii ama mu doon lu gën a yaatu incha allah. surtout loolu parce que Philippe mën nga football macha allah mais Philippe tey man gis naa ñu la dàq football ah Philippe tey Sébikotane am na talent. non loolu déggoo ma gars yi xamul Sébi rek mais Sébi <laughs> ñu ñu ngi fi déggoo ma ñu ma nekkal fii nii nii ñëpp kii nii rek talent la ak keneen ak keneen. am na benn boo xam ne ngan bi la fi def waaw moom laa la wax fi dañoo bëri fii talent dañoo bëri fii peut-être gars yi xamul turu Sébi par la Sébi dafa làkku mais talent moom ku fi ñëw da nga gis ne kii talent ngi fi quoi te comme ni nga ko waxee rek gis nga ko sa am nga am na ñi nga séntu mais moom moom laa damay ñaan tamit ñooñu yàlla dimbali leen ñu dem ba signé pro ñëwaat xam nga taxawaat Sébi incha allah. mais dama lay kaañoo suuf si métti na de. fii gisa yow dara yow fii <laughs> fii yàlla bu naaj bi tàng yow da ngaa fekk heure bi kii naaj bi bu tàngee nii yàlla bu kii nag teg teg yi waaw ah. ah, te xaalis da nga ci bàyyi da nga jaay ba kenn de. Ah. mais tey mu nekk journée bu neex. Euh, maa ngi yow jugee ndoo Dakar ñëw nañ si yoon bi gis nañ paa bi gis nañ famille bi mais lan ngay yëg la fekk nga taxaw sa copain yi d'enfance yëpp sol samayo ban am ban sentiment au fin fond de toit looy yëg parce que lii tamit dafa rafet. waa je pense que fierté la rek de parce que tey jii moom ku nekk ñaan nga yàlla voilà ñi nga nekkaloon démb. bu dara xewee tamit ñu ñu taxaw la te ñii moom mooy li ma wax. Ah, xam nga jour moom dafa dafa de li nga xam ne bu neexee ñi les messages dañuy bëri waaw mais bu commencé nakari genre ñii rek ñoo les message ko waaw bul bàyyi bul ko ne genre jàppal kon donc loolu sag la daal. comme on dit rek nit ki moom balaa ngaa balaa ngaa ja euh, laax jaay la ñuy wax da ngay da ngay laax lekk donc du coup man balaa maa dem feneen fii laa am parce que fii moo tax ma doon ma doon li ma doon tey donc du coup su ma ñëwee vacances. fi ma daan fi ma daan toog laay toog ñu ma daan nekkal laay nekkal donc du ko loolu la ko waaw. nga fubal ci terrain bi nga xam ne wute na ak yi nekk Turquie lan lay def vraiment lan la lay fàttali. waaw da lay fàttali lu bëri rek da lay fàttali ba ngay xos lu fii rek. waaw ne ci suuf si di di di di jaayante da lay fàttali loolu rek après ay souvenir la quoi ay souvenir la parce que xam nga bien vrai que damay wax ni ki man rek ma amagum. genre amagum chance su fël mais ñi ma wër nii ñëpp ay talent lañ ñaan naa yàlla tamit ñoom ñu fël ba voilà li ñuy def nii ñu dajandoo ko fi di def mu gën a yaatu waaw loolu laay ñaan. ndax am ne époque bu lay fàttali lu jiitu ngay nekk joueur international wala joueur pro comme ni ñu koy waxee li fi jot am léegi lan la lay fàttali. waaw ay jamono yu ñuy entraîné ay nawetaan nag di fubalandoo suñu biir di def ay match gala ay teg teg yooyu la rek waaw da lay ko ay souvenirs yu bëri waaw te vraiment. ay souvenirs yu neex waaw. Euh, nga nekk fële ci diwaanu Turquie def fa saison boo xam ne ren yàlla def na nga dem ba final mu mel ni aussi vraiment jaloore euh, la moom nga def fële nga xam ne mooy diwaanu Turquie lan nga ñu mën a wax un petit peu ci sa bilan ci saison bi nga xam ne ci nga jógee. waaw je pense que ça va de genre commencé nañ ko bu baax ci digg bi amoon na ay yéeg daanu mais après finalement terminé nañ ko bu baax di sant yàlla jour moom lu ñuy wax rek li ngay ñaan mooy football sans te football nañ sans gaañu donc sant yàlla bu baax après dem nañ final yàlla def ñu perte ko. ça fait ça faisait sept ans équipe bi demul final donc dem nañ final amoon yaakaar ci mais bon yàlla moom mooy dogal sant yàlla dañuy gën a liggéeyaat rek waaw. ndax nga évoluer fële ci diwaanu Turquie yomb na d'autant plus que li ñuy gën a di gis ñu ci bari pays d'occidentaux yi la ñuy gën a choisir. waaw affaire moom comme on dit rek nit ki moom boo xamee li la yóbbu foofu da ngay liggéey rek xam ni ki ak lu ñu mënti wax tamit ñu ne ñoom bokkuñu. waaw nit ki moom waaw da ngay xam ni ki yow bu gaa yi liggéeyee cinq da nga war liggéey vingt pour ñu gis la. loolu la rek waaw. Philippe ngay doomu Sénégal ku ne Sénégal ñu bañ a wax forcément li nga xam ne mooy équipe nationale da nga amagul opportunité wala lu tax mënaguñ la dégg ba léegi ak sa rapport ak ñi nga xam ni xëy na ku mel ne Aliou Cissé par exemple nga xam ne moo yor équipe bi. non du tax bu mën a dégg sax jaar naa fi woofu bi yàlla def ma ma jël ko mais je me dis que ni heure ba jotagul rek waaw man maa ngi sama rukk maa ngi liggéey affaire yi moom bu jotee moom waaw loolu ñëw mais Aliou lu ñu mooy mu continuer ci lancé bu mu nekk parce waaw ça va quoi vraiment man moom sama côté maa ngi liggéey waaw affaire yi moom liggéey la rek heure bi bu jotee rek incha allah dinañ fa yegsee ak jàmm te bu ñu yegsee tamit dañu xam ni ah waaw yàlla baax na. mais rêve la comme xale bu nekk kuy évoluer ci football pour nga jouer ci équipe nationale bien sûr. Ah, loolu dëgg la loolu dëgg la fii ku képp ku fi nekk naan nga yàlla boo si ñaan nga yàlla tamit représenté naa ko ak catégorie yu ndaw yi. moom laay du sax rêve parce que rêve mooy li nga xam ne da ngay génn ci lii moom dañ ci dañ ci toll dañ ci dem bu soobee yàlla liggéey fii ak benn at ñaari at rek waaw. loolu du réew. alors ñuy jël Coupe d'Afrique ñu bari jàpp ni vraiment day wane ni footballu Sénégal am na évolution bu baax a baax ndax lecture boobu nga ci am yow mi jógee fële ci Tugal. non loolu je pense que tey jii nii nii nii trophée yi ñu jël yëpp firndeel na ko. genre petite catégorie ba ba yi euh, liggéeyu centre yeeg liggéeyu école football yi mu ngi kii donc saa su loolu rek trophée rek kii la woo fa résultat la nekk journée bu neex. ban moment moo la dàqal tey si journée bi. match bi rek bu kii toogee nii match bi waaw. ak bu ma reer bi des na de. doo ma doo de. ah gaa reer de. gaa yi reer de gaa kon nag euh, tey journée bi presque jeex na xam naa ñun fii la ñuy arrêté journée avec Philippe euh, ma rek nga def sa mot de la fin. xam naa sa gars yi nag am na kenn ku si bëgg a sànni kàddu waaw mu benn 30 secondes rek non benn 30 secondes non naa am ko benn 30 secondes rek benn témoignage parce que tamit amit naa face baax na benn 30 secondes rek balaa balaa balaa mooy kii. waaw ñu jaajëfal ñëpp ah wax dëgg si yàlla di am kontaan eh. euh, di rafetlu tamit di nii en fait euh, bu ko Philippe defee nii. ñëwal nii je pense euh, bon yow lu ma def nii bon lu nice la quoi. te depuis daaw moo ngi koy def dëgg si yàlla ñu koy ñaanal rek a di ko ñaanal yokkute xam nga ak góorgóorlu rek waaw loolu amoon pour sandi di jaajëfal ñëpp ñëpp ñu teewoon ci journée bi ñoo leen di jaajëfal. jërëjëf. alors waaw xanaa mooy sama sama sama waa ji mu voilà ñun xam nga lii fierté la ci ñun mbégte la ci ñun. Ah. parce que tey jii bu ko neexoon euh, dem na am na li na leen a nekk mu dugg sax sa kër jox ak gaay yëpp loxo donc loolu donc ci ñun la ñu gisaat ñi nga dul xam nga rek di ko ñaanal au nom de mbaxal mi aussi ah mbaxal mi laay laay wax mbaxal mi mbaxal mi boo dugal ko ci day saf sap waaw est-ce que saf na saf sap daa am nuñ koy terminé nag. Ah. terminé bi mooy. sëb bi booy sëb bi daa am originalité booy nee naa ko waa Tëngéej mu waa sëb bi mosu ñëw Tëngéej ci football mais da ngaa bañ. saa laay bàyyi mu tëjal ma ambiance. atiwaat waaw Youssou Ndour Baye. jiringo nekk Marlo beeg Samba. guli mi ci dingi naat l'international Philippe moo wéy ko moom ak gaay waa Seneweb ñu ngi nii foo mu wéy leen. Philippe booy Philippe mi ngi lay ñaanal gudd fan wér ak wér li yoog sa gaay dama ni woon munu ma ñàkk participer jërëjëf sama waaw di di ci waxale dara di di remercier sama waa ji Aliou Fall waaw kooku moom gannaaw yàlla lépp moom la jërëjëf yow aja ambiance ambiance ambiance